radiallahu taala an asxaaba rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ajmain wala hawla wala quwata illa billah lalin azim ya himmat cheikhi uxduri lana bi hada almahdari wal taatufi bi nadaratin taati lana bi zafari bu ñëw ci suñu darsu nasiha waaye ñu ñëwaat ba tey ci ifadatu ahmadiya allimhu ma tayassara min alqur'ani wa allimhu alkitabata wa allimhu sanaatan yaishu biha lii waxu Mawlana Cheikh Tidiane la radiallahu anhu allimhu mu ne xamal ko maa tayassara lu ko gën a yomb min alquran ci alquran wa allimhu te nanga ko xamal alkitaabata mbind wa allimhu te nanga ko xamal sanaatan yaishu biha maanaam liggéey boo xamante ne ci lay dunde na ko xamal liggéey boo xam ne ci lay dundee wada qaalahu li rajulin wax ji nag Cheikh Tidiane daf ko waxoon ci benn waay shaawarahu waajoo xam ne dafa ñëwoon di ko diisu fii amri wala dihi ci mbiru doomam waa ji dafa ñëw di diisoo Cheikh ci mbiru doomam Cheikh Tidiane nag pour conseiller ko ne ko allimhu jàngal ko maa tayassara min alquran lu mu mën ci rek jàngal ko ko ba mokkal wala ba yàlla mën loo ko dara ci alquran boo nag wa allimhu alkitabata jàngal ko mbind fexeel ba mu man bind itam mu ne wa allimhu sanaatan waaye jàngal ko itam métier yaishu biha boo xam ne dina ci dund dégg nga loolu la Cheikh Tidiane jàngale woon boo demee nag ci alaamatu xajjuuji radiallahu anhu mu ngi wax ci lu mel noonu mu ne haada min baabi inayatihi lii ci buntu ndimbal goo xamante ne Cheikh Tidiane radiallahu anhu daf ko doon dimbale nit ñi dégg nga euh, ci lan waaye ak bunt ak bunt boo xam ne itam daf ko amoon ci fonk gim fonk alquranul karim moom Cheikh Tidiane radiallahu anhu dégg nga maanaa fonk gi nga xamante ne amoon na ko ci ni mu fonke alquranul karim ak ni ko jàppee dégg nga waaye wa tasrixihi bi afdaliyatihi ala saairi matluwaat mu ak leeral gi xam ne Cheikh Tidiane mu ngi koy leeral ci ngëneel bi nga xamante ne alxuraan gën na ko ci mboolem lu ñuy jàng alxuraan moo gën ci lépp lu ñuy jàng loolu nag ci na ko ñëpp bàyyi xel Baay radiyallaahu anhu wax na ne su ngeen amee doom su amee juróom eh, juróomi at fexe leen ba wax ashhadu an laa ilaaha illallaah wa anna muhammadan rasulullah mu ne su ko waxee dugg na ci daaratul islaam mu ne waaye fexe leen itam ba alxuraan jiitu ci dënnam itam bu mokkalee wërsëg la su mokkalul itam dina fekk alxuraan jiitu na ci dënnam lii la Baye wax radiyallahu anhu kon Cheikh Tidiane yi dafa leeral ngeneelu alxuraan ne gisut dégg nga lu gë lu ñuy jàng lu gën alxuraan loolu amut fexeel ba sa doom mu jàng alxuraan su mokkalee wërsëg la su mokkalul itam na fekk xam na ci loo xam ne mën na ci jaamu yàlla ndax bëri na ci ñoom ñoo xamante ne. dégg nga jàng nañ alquran waaye mokkaluñ ko Cheikh Tidiane amul benn doomam bu mokkal alquran dégg nga radiallahu anhum kon ñu bàyyi ci xel mu ne wa xaddihi ala qiraatihi wa taalimihi li nachiati waaye ak peeg gi nga xam ne mu ngi koy peeg yaa ngi dégg ci wane ne alquran lañ war a jàng alquran lañ war a liir yaa ngi dégg ñeel ñi nga xamante ne tey dëgg-dëgg dépassé nañ ay ne ñu ngi dépassé ay ndaw ñu ngi ne dépassé xale bu ndaw dégg nga waruñ dara waru leen lu jàng dégg nga waaye rawatina jàng alquran itam ma taalimihim ñu jàng itam qawaid al kitaab yi ponk mbind dañu war a jàng ponk mbind ñëpp xam ko dégg nga wa dawabitaha dégg nga akay ay nit ki da nga war a bu ginnaaw bi nga jàng alquran waaye nga fexe itam ba mën a ja ba mën a bind naka la ñuy bindee ak ponki mbind yooyu yëpp naka la yaa ngi dégg ak attey mbind yëpp naka la parce que bokk na ci diw jàng na waaye mënta bind su boobaa yow njàng bi mu ngi mel ni amul benn njëriñ parce que mën nga jàng waaye mënoo bindal sa bopp dégg nga sooy bind il faut nga woo nit ñi ne leen kaay bindal leen ma wala kaay leen nangam ma nangam loolu amul njariñ moo tax Cheikh Tidiane radiyallahu anhu da doon wax ne dégg nga na ngeen ngeen ko jàngal mu man bind mu xam àttee mbind waaye mu xam itam ponk mbind radiyallahu anhu kon gis nga ni mu yaree ndaw ñi ngir eh, xale bi su màggee mën a jëriñ boppam mu ne wa ila hada aydan xaddahu ala taalimihi xirfatan yaqtaatu biha mu ne ba tey itam indi na ci nit ki danga nga war a peek danga nga war a dajale yaa ngi dégg ci nga jàng yaa ngi dégg soo jàngee su boobaa di nga mën a am cilo loo yëngatu yaa ngi dégg ngir nga mën ciy dund dégg nga soo jàngee di nga mën a am ci loo yëngatu ngir nga mën ciy dund dégg nga mu ne li kay laa yakunu aalatan ala ngir nga bañ a nekk koo xam ne da basé wu ci nit ñi rek maanaam nga wéeru ci nit ñi nit ñi maanaam di la di la yor sa lépp dégg nga loolu loolu loolu baaxut dégg basé wu ci nit ñi ci sa lépp dégg nga Eh, bul di wéeru itam ci nit ñi fexeel nga amal sa bopp dara di yëngatu ci dara nga am loo xamante ne moom ngay yoree sa bopp moom ngay dundalee sa bopp li la Cheikh Tidiane jàngale wala garabata fi hada loolu tuma lu tumaranke nekku ci faqad kaana kasirun min al anbiya yi mu ne ndax bëri woon na ci yonantu yi yonantu yi ci seen bopp alayhim salaam yaa ngi dégg min zawil xiraf ñoo xamante ne dañoo amoon métier yaa ngi dégg yonantu yu bëri borom métier lañ woon waaw ka tijaarati lu mel ni ki commerce yonent yu bëri dañ daan def commerce wal binaa wala tabax yonent yu bëri ay mason lañ woon wal xaddaadati wala eh, tëgg yonent yu bëri dañ doon tëgg ay forgeron lañ woon da nga dañ doon tëgg wal xiyaatati wala ñu nekk ay ay ay ay ay eh, ñawkat yaa ngi dégg ay tailleur yonent yu bëri ay tailleur lañ woon dañ doon ñaw mooy xiyaata da nga mu ne wa maa ila zalik ak yeneen yu mel noonu yëpp mu ne wa kazalika naka noonu itam as sahabatul kiram saabatul kiraami itam fa julluhum mu ne mbooleem seen min ahlil xarafi yaa ngi dégg min ahlil xarafi maanaam ñooñu métier lañ woon sahabatul kiram ñu gën a bëri ci ñoom borom métier lañ woon waaw loolu moom bëriwaat na fu ñu koy jàngale ci ay xissa boo demee Seydina Omar daan wax ne Abdullah ibn Omar tey damay liggéeyi mënu ma fekkee jotaay yonent bi demal nga wutuma fa ndax su ma ñëwee nga nga wax ma li yonent bi jàngale tey yaa ngi dégg beneen yoon Abdullah ibn amar dem liggéeyi si Seydina Omar wutu foofu yonent wutu foofu noonu doomam dégg moom itam bu jàngee dara ci yonent bi mu jàngal ko doomam dégg nga noonu lañ doon dundee te du moom kese mbooleem sahaaba yi noonu lañ doon dundee parce que dañoo amoon ay métier te jàngale nañ itam Seydina Ali ibn Abi Talib ci boppam da doon dem di liggéeyi ci benn jardin yahud yahud bi di ko fay wax nañ ne eh, dem na kër benn yahud dégg nga mu liggéey fa ba fa liggéeyee yahut bi fay ko ñeenti dërëm ñeenti dërëm yi ba mu jël benn dërëm bi saraxe ko mu jël beneen dërëm bi maanaam ci bëccëg bi la ko saraxe be ci guddi la ko saraxe beneen bi ci ëllëg sa la xëy eh, nit ñëw këram di ko yelwaan yaa ngi dégg beneen bi itam eh, xaw ma nu mu doon def ba <laughs> mu mu mu saraxewaat ko te pourtant ba muy liggéey loolu lim jun dundalee njabootam moom la doon wut yaa ngi dégg radiyallahu anhu kon nañ bàyyi xel ci loolu nit nga wutal sa bopp nga amal sa bopp liggéeyal sa bopp yaa ngi dégg ba am dara loolu itam dafay dafay rafet lool yonent sallallahu alayhi wa sallam eh, daan faj dégg nga soo demee ci eh, sunna da nga gis ne yonent bi mu ngi daan faj moo tëbbu nabawi dégg nga boo demee ci Cheikh Tidiane radiyallahu anhu Cheikh Tidiane daan faj yaa ngi dégg Cheikh Tidiane yi demee ci naylul naylul uh, uh, naylul naylul maram yaakaar naa la tudd fi tibbi ruhaani bu Seydi Ahmed Sukayrij da nga fa fekk loolu Cheikh Tidiane daan faj dégg nga yoroon na ay ay ay ay yu bëri ay garab yoo xam dafa daan defal nit ñi di di leen uh, sanguloo yaa ngi dégg di leen faj ci ay ay garab yaa ngi dégg ci ay gàncax yaa ngi dégg ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp Cheikh Tidiane yi da yëngatu ci loolu dégg nga en même temps Euh, da doon def yu mel noonu daal radiyallahu anhu mu ne faf xam daalik na xam loolu nag na nga xam loolu kon nit ku nekk war nga wut ci loo yëngatu ci moom ngir nga mën a am loo ci dundalee sa bopp allahumma salli ala sayyidina muhammadin haqqa qadri wa miqdaril azim abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ formé war ngay sant yàlla ñu la digil kese la doon